Ndaamaatu Ndaamaatu di quartier bu ràññeeku ci dëkk bu sell bii di Touba Ndaamaatu bu ñu tuddee xel yëpp dem ci hôpital bu mag bu nekk Ndaamaatu ñu koy wax hôpitalu ndamatu waaye mbokk yi Ndaamaatu mooy barab bi nga xam ne nii saa bu nawet jotee ay téeméeri téeméeri kër la ndox mi di nangu génne seeni borom ci biti diirub nawet bi mbokk yi kenn mënu fee jaar état du Sénégal taxaw ci xool nu ñu yokkee assainissement bi ngir ndox mi di nangu jumaay Serigne Saliou ji ngir ndox mi di nangu kër yi ay téeméeri téeméeri nit di génn ñu boole leen ci assainissement bi gasal leen fi ay rigole def fi ay regaat ngir mbënn mi daan am ndaamaatu ñi ci saafara mbokk yi waaye mbokki dafa am ñoo xam ne ci dëkk bi bu dëkk bi joree ñenn ñi ñuy daj lu nekk am na ñoo xam ne dëkk bi jarul leen dara seen bopp rek regaat yooyu nag dañu koo sakk ñoom de gisuñu coono bi nga xam ne nii nit ñi daj nañ ko ba indi fi assainissement bi ñoom de gisuñu coono ji nga xam ne moom la waa Touba ca kanam di daj depuis ba mbënd mi tàmbalee ndaamaatu ak léegi. tey ñu ngi nii di sàkkar ñi ay canal te Touba ca kanam a koy def ngir lan ngir wàññi jafe-jafe yi ñu dëkk fii ci ndaamaatu. ñu ngi fii di defar ay tuyaux yu yàqu ngir lan ngir Touba ca kanam bi xool yoon wi nan la ci war a mën a indee saafara waaye mbokk yi image yi daal jekkul. rafetul te xel mënul nangu ñu di ko def ci dëkku Sëriñ Bamba bii. ñëw nañ daamaatu fekk si leen wan leen ni nit ñi def kanaal yi nga xam ne moo waroon a yóbbu ndox mi dañuy teewlu jaw mi nga xam ne moo fi nekk ci turu Touba Ca Kanam ak équipe bi mu wax ñu li fi xew. waaye it wan ñu. Euh, muy bi nga xamante ni si moom lañ ci defoon réseau bi nag bi ñu ñëwee liñ ci gën a constaté mooy waa réseau mooy réseau bi nga xam ne moo war a jàllale ndox mi. mu dem Kër Ñang liñ ci constaté nag bi ñu ñëwee dañoo fekk ñu sakk réseau bépp bépp bépp dañ koo sakk dugal ci ay ay bant ak i saaku ak i ak i baas ak lu ne waaye yàlla dogal na nag gis ngeen ko nii ba ci ëkk bi ma tiim nii ci biir canal bi laa ko génne ak lee nga xamante ne si ne moo jale ne lépp ci biir bi laa ko fekk naa fi itam la majeure partie seen foncier yi yëpp ñu branché ko ci biir réseau bi loolu lépp man maa ci teg sama bët leneen li ci des mooy bi nga xamante ne si yàlla dogal na yoon wi dafa tëjee bërki dem ba tey ñu ngi ciy liggéey euh, ba tax na liñ doon liggéey ci yoon wi lépp itam yàlla dogal na munuñu ko buñ bu daanaka buñ liggéey ba mu set ba fanaanee ba bët set mu mel ni defuñu defuñu woon dara biñ xoolee xam ne nag léegi li ñu war a def moo di ñëw euh, fexe régler problème mu ndox mi ba noppi nag doog a continuer sunu liggéey incha allah ah waaw maaw lañ ci àndal euh, Pablo ngi fi mi nga xam ne mooy responsable maaw ak Dramé mi nga xamante ne si moo yor wàllu reso bi. fii liñ fi liñ fi sekkar ci yaakaar naa 21 canal la. 21 canal lañ fi segal parce que bu ma ci dem rek génne nañ fa stock boo xamante ne si ne buñ woon lii kuñ ne lii ci canal bi am na ci yoo xam ne si nag moom li tàmbalee ci euh, fële jege hôpital bi moom suuf rek moo fa nekk mais li ne ci biir quartier bi moom lépp dañ koo sakk ay saaku ay même ay poto poto courant poto poto poto doj lañ ca fekk da ngeen ko gis ci kanam léegi. waaw bii moom maa fekk ñu bett na ko. def ko muur boo xamante ni si na daanaka toll nii toll na nii ci kaw. la tojee nii. waaw lii lépp lii lii lii gën a tuuti. Hmm. muur bu mag la man maa wax machine bi mu puus ko démb. Hmm. yóbbu ko ne damaa xam fu mu ko yóbbu. Hmm. waaye fu mu ko bàyyi damaa koo xamul waaye fii da ko bett na woon lii lii la bett na woon ba fii tëj ko complètement nga xam ne si ne boo fi ñëwee moom canal sax du doo ko fi teg ba man bi ma ñëwee xamu ne woon canal la mais bi ma ko. mais loolu luñ ci jub lu ñuy def loolu. moom bi ma ko wooyee bi ma yàlla dogalee ma woo ko ba mu ñëw dafa ma wax ne dañ ci doon sotti ay mbalit léegi nag ñi nga beneen bi ci des moo di ñi xamante ni si ni ñoo branché ci égo yi seen fonce yi nee na bu ñëwee fii day xeeñ nee na moo tax moom mu ferme ko noonu te dañ ci daan sax booba kubéer gaa ngi waaye da koo fermé complètement nga xam ne si ne doo gis dara waaye nee na day xeeñ ci këram parce que égo yi bu ci branché moo waral muy xeeñ xeeñ fii moo taxoon mu tëjoon kon ba tey ñu ngi ci mbedd mi nga xam ne ñu jógee gaar ba waaw jëm jëm ndaamaatu jëm hôpitalu ndaamaatu continué ba kër sëñ Modou Boussa Dieng mbokk ñoo ko gisandoo xam ngeen ni lii rafetul de xam ngeen ni lii jaaduwul de xam ngeen ni ñi def lii dëkk bi ñoru leen ndaamaatu ñoru leen ndax sax sëriñ bi ñor na leen ñii kat dafa mel ne seen bopp rek leen ñor waaye lii daal na dakk te nañu ci taxaw ba bu ñu xamatee ku ko def yoon dal ci sa kaw ndax lii askan wi yëpp ko moom nga ñëw sakk ko ngir sa njëriñal bopp lii askan wi yëpp lañ ko defal nga ñëw sakk ko ngir sa njëriñal bopp jekkul jaaduwul. mu doon loo xam ne ni tamit lu ñaaw la loolu jëmoon nañ ci jamono jële passé ba defoon fi lu tolloog 700000 yoo xam ne jëndoon nañ ko jënd ko ay xeer sotti ko ci kaw tër bi fi nga xam ne fa la doon taa waaye dafa mel ni jëriñu ci dara bi nawet bi ñëwaatee. loolu nag tey jii moo juraat waa Touba Kanam salaat seen dàll ñëw fi di ñu fas yéene liggéeyal loolu waaye nag ci loolu tamit ñu waxtaan ak waa gox bi nga xam ne ñoo fi dëkk nit ki mun réseau yooyu nañ xool yenn solution yoo xam ne moo nañ ciy génne waaye du duñ ko branché di ko bran waaw du di ko def ci canal yi loolu moom jëf ju ñaaw la joo xam ne nii du jàppale sëñ bi te du dimbali suñu bopp tamit te comme ñun dañuy woo ndimbal ñi ñuy dimbali bu ñu ñëwee dañoo war a fekk ñu nit ñu def loo xam ne dañoo war a fekk ci waar wi ba tax na tey bi ñu paree ci canal yooyu ñu ngi sol sunu daal dugg si koñ bi kër yi nga xam ne tey seen i borom bandoone nañ ko mënuñu fi dëkk ndaxam ndox mel na ni dëkk bi yëguñu ko ñi nga xam ne ñooy responsable yi nga xam ne ñoo nekk si dëkk bi yëguñu ko kilifa yi yëguñu ko waaye ndaamaatu ay nit a ngi fi dund dund yoo xam ne dund gu metti la ñi nga xam ne am nañ fu ñu jëm wala boog Euh, mën nañu ànd nañ leen kër ñooñu génn nañ ñi nga xam ne amuñu fuñ jëmit ñu ngi dëkkandoo ak ndox mi toujours di ñaan ci ñi nga xam ne ñooy responsable yi nga xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne ñoom lañu dénk dëkk bi nga xam ne as askan xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi képp ku ci am jaaxle ñoom lañu war a woo ñu ngi leen di ñaan ñëw ci ndaamaatu saytu jafe-jafe yi nga xam ne moom la population ndaamaatu dund parce que metti na nga yor ay xale metti na nga nekk si kër war du si fees nga bëgg ko wii vidé munoo am fa ot jaar mm-hmm. te ba pare di dëkkaale ak moom loolu metti na ñoo ngi ñaan daal ci ci ngir sëriñ Touba ñi nga xam ne ñoom la sëriñ Touba teg loxo yi teg dëkk bi seeni loxo te ñu war ñoo dimbali ñu ñëw dimbali ñu comme ni ko waa Touba ci kanam di defee bu ko ni mairie bi doon defee ñeneen ak ñeneen di ko defee yaakaar naa jafe-jafe yu bari dina wàññeeku.